ولكن غادي استاذ بيدا صوف يا ما غادي صوف انا الاسلام والايمان الكامل اي اللي ما وراه موم لا يتخفال مي دوكا واخ يالنا يخ ما يفعل دمنا اي اللي فيك فال غي دوند سوخلا وول ديرمو كين كو يور سا سما ورسك تيل كو يور سا تيرانغ تيل كو ام يالا dafa mat bàyyi xel de waaw. su ko defee góor gi jigéen ji nag ku nekk da ngaa war a xam sa bopp xam sa devoir jigéen du yuuxu jëkkëram soo bëggee am doom ju baax laa wax soo bëggee am doom ju baax sa jëkkër waxam yépp waaw la war a sant. soxna si buma sañon nga defal ma nangam waaw suma sañon do dem barab sangam waaw Suma sañon li ma lay téré nga bayiko ko waaw Suma ma sañoon ngay andal te neexuma nga bayiko ko waaw Suma ma buma bu ma bëgg ci kër gi waaw suma sañon xalé yi ngay ñom nangam ak nangam waaw su ma sañoon lii ma bëgg ci kër gi lépp di nga ma ko defal waaw jigéen làmmiñam ca jëkkëram dara waru cee génn lu dul waaw lii may wax nag pour ku bëgg a am doom ju baax laa wax de waaw soo bëggee am beneen façon doom nag waxuma ak yow ki bëgg a am doom ju baax nga xam ni ëllëg même bu fi jógee turam dootul fay waaw turam dootul fay kooku laay wax ko lu jëkkëram wax waaw la sant lu jëkkëram wax waaw la sant waaye di maltraité sa jëkkër di ko yuuxu doo ko toppatoo bu ñu waxee nga ni Europe bopp sa bopp la Europe ba nga ko defee bopp sa bopp nga ko yàqu bu doon bopp sa bopp doo fi ñëw waaw su doon bopp sa bopp rek doo fi ñëw dafa mat xel de waaw jëkkër kenn du ko yuux parce que dañoo dajaloo ca jàkka ja ne jël nañ diw dénk ko diw te képp kuñ la dénk mooy sa sang danga ko war a tarbiyu war koo toppatoo xam nga la la amoon bu njëkk moo amatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko gën a tedd Seyduna Muhammad ku ko gën a baax Seyduna Muhammad ku ko gën a yiw sayduna muhammad ku ko gën a tedd ki nga xam ni ci moom la tedd fekk baax daf daan xëy moom yent yàlla muhammad dajale soxnaam yi ba nu ñëw mu ne leen tey dañuy kursu tey dañuy daw tey journée bi moom kursu la rawante bëgg ay soxnaam moom sayduna muhammad xam nga ñun senegal li ñu xam aada mooy boo nekkee ak sa jabar bu xëyee moom mooy ñëw fëgg sa néeg nuyu la Seydina Muhammad ne déedéet man Muhammad bu ma xëyee suba maay topp kenn par kenn ci sama néeg soxna yi ne koŋ-koŋ Aïcha mu ne labbayka ma ne ko salaamu aleykum Aïcha noo fanaanoo mu delloo ma nuyoo ma ne koŋ-koŋ nekk Hafsa Hafsa noo fanaanoo mu ma jàmm ma ne ko ma romb ko dem nuyu keneen allahu akbar ñoom ummu salamata soxna yonent bi ñoom ñëpp Seydina Muhammad nee na bu ma xëyee may topp néeg par néeg nuyu ñëpp man yonent bi te moo gën a baax ñëpp bu suñ jamono tey nag góor ñi fi toog lañ toog bu ñu yeewu woon 6 heures daañu toog seen néeg yi ba midi di xaar rek ku ñëw ni Njaay Jóob Faal man sens la am yonent bee la gën te daa wàccee woon boppam képp ku bëgg yàlla yëkkati la da ngay suufeel sa bopp. xëy ni xëy ni soxna yi tey course la course rawante waaw kuy njëkk soxna yi départ xam nga góor ak jigéen mënuñoo yem ci daw parce que góor moo ëpp kàttan mais yonent bi dafay daw ba nar a jiitu yéexantalu bëgg soxna yi jiitu ko léeg-léeg mu ne ah Aïssa tey nag yaa jiitu waaw tey moom bëggoon naa jiitu mais tey yaa jiitu su ko defee Aïssa kontaan te fekk moom moo ko def exprès bëgg rek lu seddal xolu jabaram waaye koo xam ne dara seddal sa xolu jabar seddal xolu waa via bi moo la ko gënal soo demee sa kër xarit yi dàq xaqataay ñëpp dàq ree ñëpp dàq bëri ñëpp te boo ñëwee ci kër gi mel ni mikki ne kuñu ku ñaaral mel ni laso bu ñu pintu ba kañ du dem bul nangoo baax ci mbedd mi mukk di jaay caractère ci biir kër gi bul ko def waaye am na ñoo xam ne kaf seen jabar deewa ko gënal waaw buñ dee wax ak moom turam rek duñ ko tudd tudd bu neex tuddee faatu faatu aw e eh, nabu e eh, ko dee ban sens la am luy yuuxu neexalal sa jabar jiitee ko sa fukki loxoog juróom billahi am na jigéen ñoo xam ni ku leen fase samedi waxuma la gars yi xaar seen idda jeex mais bu xaajee rek ñëw nañ bindu waaw soo amee lu baax da nga koy soo amee jigéen mu nekk gor jàppale la ca ba dara dul woon dara bul am mukk ba koo fàtte waaw am na jigéen ñoo xam ni ba ngay jaay jën la woon ak ñoom ba ngay koksóoru benn dërëm ba ngay apprenti wu nekk Sénégal lañ nekk ak yow di la muñal nga am rek fàtte leen waaw ñi nag dafa am lu ñu wax képp ku toroxal sa aawo génnee sa aawo toroxal ko génnee sa taw toroxal ko xaw ma kuy am lu baax ci àdduna waaye du yow aawa ak taaw dafa mat a bàyyi xel de ñii